fasloon lii ab dog la fii nifaasi ci mbiri wasin wama yataallaqu bihi ak la nga xam ne aju ci mbiri wasin wasin nag kalaxay di mi ngi mel ni mbërëg maanaam règle fil manhi ca yañu ca tere nifaasun wasin xat badaa feeñ na ca waram xam-xam yépp ne fan ya muy am di génn moom deret ca soxna sa ak saruhoo la ca gën a bari sittiina yow man juróom benn fukki fan lay doon woo di daa lañu lim waaye nag li gën a bari la wax waaye mën na koo gën a néew lool te ëpp a bari lu néew lay doon toomaru dees na digeel jigéen bil xusli ci mu dem sangu ji farata maasalaati te dem julli ji in baana su fekkente ne feeñ na ne in xitaahun deret ja dagg na xablahaa lu jiitu juróom benn fukki fan yooyu ñu la joxoñoon kàmmaa sukki na nañu ko tàmma gise waxtu ne li gën a bari ci jigéen ña bala mat juróom benn fukki fan seen deret ginnaaw wasin jeex ndeysaan ñii benn fan lay jeex ñii ñaari fan mu jeex ñii ñetti fan ñii ñeenti fan waaye li ëpp bari daal fan yu gàtt la deret di génn ginnaaw wasin ca jigéen waaye ku gis mu génn lu mat ñaari weer tamit bul tiit te xam ne noonu la ko fiq jàngale ndeysaan su ma isaa haawadahaa su fekkente ne nag dagg na ba pare dellu siwaat ak damm moom deret ja wakaana te nekk baynahuma diggante fa mu dagge ak fa mu dellusee yajibu tollu ci fukki fan ak juróom toll ci fukki fan ak juróom fa mu dagge ak fa mu dellusee diggante ba fukki fan ak juróom la yaji bu jooju fukki fan ak juróom lay tekki yaa fukk la jiin gi ñett la baa di ñaar boo boolee fukk ak ñett ak ñaar da ngay fukki fan ak juróom loolu nag kiy jàng adat na ci jàng bu baax ndax sëriñ bi dafa man jenaas te jekko arab nu ko neex la koy bindee xoolal ni mu bindee erot bi ba pare def ci ay jenaasam def ci adat te woy wi lépp jub bala ma ci ngay ndeysaan aw baana mbaa mu feeñ ñàkk ñëw deret jooju ak sëru ëpp fukki fan ak juróom kon jàppal ne fasaani ñëwaat ak deret jooju ik si ginnaaw fukki fanak ak juróom min huma ca diggante yari dagg-dagg yooye te bi muy ñëwaat toog fukki fan ak juróom mbaalu kopp doogu ñëwaat xamal ne yàkkoonu ay dan nekk ne meneen mbërëg mu tani fan moom daa sosu kon mbërëg mu bees la indal faqihi ca aji dégg ja fiq ay dan ba tey jàppal ne noonu lay demee wa in yàkkun bu dee nekk na nag baynahuma diggante fa mu daggeek fa mu dikkaate doona matul fukki fan ak juróom loolu mooy doona yajib yajib jooju jàngaloon nañ la ko yaa fukk la jiin gi ñett la bagi ñaar la kon doona yajib fa mu daggeek fa mu ñëwaatee matul fukki fan ak juróom yow man ci ay fan fa yajib war na nag ca julit ba dammuhu mu boolaate fan yooyee lil awli ak fan yu jëkk ya te xam ne loolee daa ñëw bokk ca fan yu jëkk ya daa daggoon rek suma isa nazarta su ko defee boo ko settantalee fil xiyaasi ca calcul ba wa jattuhoo da nga fekk loolu yi nga xam ne mooy dikka ak indisposé bi mu tammi ma nifaasi di mottalisi deret ja bokkoon ca dereti wasin wa yaa ngi jàng téere sëriñ bi ñuy wooye al jawharu nafis wasalaamu aleykum